ñu ngi jógee Dakar nga xam ne buñ nee màggal gi ñetti fan ci des ci lañuy ñuy ñëw fanaan si fii ci jumaa yi ñu utal leen ay dal jox leen suñuy màndarga muy bulus yi nga gis ñuy sol muy bulus yu wert yi wax leen liggéey bi ni muy doxe ñu ñu ànd kook ñun ci ci fànn googu ñii ñu yóbbu leen ci sàppe si ñii ñu yóbbu leen ci li wër ji ñuy saytu jaay ak jënd bi ndax li wër ji dañ fiy tere jaay ak jënd ñii ñu teg leen ci wàllum sàppooy góor ñi ñii ci sàppooy jigéen ñi ñii nekk ca barab ba ñii taxaw ci porte yi di xaajale góor ñi ak jigéen ñi ak di leen waxit ñu sàmmonteeg worma ji ndax euh, euh, jëmm ji fi tëdd way takk yi it niñ def ak daayira yi noonu lañ def euh, takk der bu fi nekk soo ñëwee dañ lay indi ci loxooy mu xaddamatul xidma sàppoor yi it dañ leen di indi ci mu xaddamatul xidma mu xaddamatul xidma it daa am ab ab fajukaay ci biir xam ne dañuy jox ay docteur yoo xam ne nii dañuy ànd ak ñun ñi nga xam ne ku dara dal ci jumaa ji rek ñu yóbbu la ci suñu suñu hôpitalu bopp nga xam ne fajkat yaa nga ca biir di faj euh, kon noonu la ñuy doxale sa euh, euh, police ak gendarmerie liggéey bi dañ ci ànd ak ñoom ci ni ñu niñ ko bëggee rek mais niñ koy ni ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee rek ñu wax leen sart yi ko defee bu boobaa ñu jàppale ñu ci loolu waaw di di di ñaanal ñëpp jàmm di wax wa axiru dawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ñëpp am jàmm ba déwén ak jàmm incha allah ok jërë ngeen jërëjëf yàlla ñu ko yàlla may Serigne Djibril Dieng mu ngi noonu gis ngeen li nga xam ne noonu la ñu ko defee dama koy jox suma micro mu ndax fii ci biir jumaa ji la ñuy tere sax ñun ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ñuy daal di euh, seeq ak euh, ñi nga xam ne ñoo di góor yàlla yi waxtaan dañu koy tere moo tax ma dénk ko micro bi xanaa ma xool rek mbokk taalibe yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di ziyaare soxna si kaay ma laaj la ñaari kàddu rek waaye ñoo leen leen bu leen daw ñëwal ko am fulla nga kaay taxawal na nga def taxawal ni jàkkaarloo sama caméra na def. maa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm noo tudd. maa ngi tudd Alimatou Camara. Alimatou Camara fan ngeen joge ñun. Daara Xudus Ndéw ga. ah fii ngeen dëkk Touba. waaw fii lañ dëkk. da ngeen ñëw ziyaare si. waa waaw ngeen di dénk ñoo leen di seetaan ñu ngeen leen di ñaanal ci màggal. ñoo wér. loolu ngeen leen gërëm. di leen ah. waaw kontaan nañ di sëriñ bi. ndeysaan. kontaan ngi ñaanal suñu sëriñ sëriñ mu mooy seen sëriñ. waaw sëriñ kaay. soxna si kaay ma laaj la ñaari kàddu rek na nga def. yaa ngi ci jàmm fan nga jógee Thiès fii fa waaye màggal lan nga ñu mën a dénk tey ci màggal gi ah, ñu sant yàlla rek bi mooy ñeent yoon ba juróomi yoon rek sant Serigne Touba bu baax ñu yaanu yàlla di ko fekkee at bu ne yàlla fekk ñu jàmm gudd fan ak wér gu yaram loolu la ñuy ñaan yàlla jërëjëf waay Ndioba Ndioba waaw bu baax jàkkaarloog caméra bi wax ak waa Thiès yi lay seetaan <laughs> ah, loolu moom dëgg la ñu ngi ko koy sant bu baax sax di ñaan yàlla an bu ne mu koy yokk di ko sant bu baax sax waaw jërëjëf waay. <laughs> jërëjëf jërëjëf si ñu ngi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm waa Thiès yow faafan nga. waa Ndar waa Ndar Géej jàkkaarloo caméra bi na nga def. sant bu wér kay. noo tudd. maa ngi tudd Bate Bate Fall Yaay Fall suñ Fall. ndeysaan Bate Fall na Ndar Géej la jógee na nga def. sant bu wér neex na bëri na macha allah ànd ak Hmm? bëri na bëri na bëri na du ma ko rate macha allah ñu gën a topp digle yi sëñ Touba géem a roy soxna Jaara macha allah mu lay digle jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax mu ngi noonu kon nag gis ngeen euh, ambiance su màggal gaa ngi noonu man nag malheureusement fii laa mën a taxaw di jël soxna yi doo mën a dem ci wàllu wala du euh, du tee itam ñu daal di wër li nga xam ne moo di euh, kër yi daal di xool soxna si kaay rek jege ma tuuti rek ma laaj la de wala trois questions na nga def. maa ngi fi. ngi ci jàmm. sant yàlla fan nga jógee. Louga. Louga mm. naka waa Louga. ñaa fa ñu Matiyaali. ci màggal gi ñu ngi ci 129e édition waaye gis ngeen li nga xam ne noonu la ñu ko organisé waatee ci ndigalu sëñ Mountakha tey lan ngeen di wax. ah xol bu sedd rek dañoo bég ba xam ñu lu ñuy wax ndax dara jeexul te màggal gi neex na waa macha allah laf cat li ñu am nii màggalu ren gii ci lu ak li ñu yëg mosuma ko yëg ci màggal man. te man taalibe bi Saliou laa moom laa bëgg sama xol te moom laay bëgg fii ba fële barki sëriñ Saliou mais ni ngi sant yàlla rek. Euh, war may daal gis nga ne maanaam respecté nañ ko bu baax a baax. waaw respecté nañ ko gaa moom ci li ma gis man respecté nañ ko. <laughs> lan ngay dénk euh, gars ba pare nag nuyoonteel ak waa Louga nag. waa Louga maa ngi waaw maa maa ngi di nuyu euh, di leen jox sama ziar mooy bërëb boo fa dikkee te dëkkoo fa la waa bërëb ba wax ne moom lan bëgg jëfee loolu. ndaxte nit booy dem cib dëkk borom dëkk ba ne la lii laa bëgg la borom dëkk ba bëgg doxe ko comme noonu waaw. waaw bu ko defee nga am jàmm kenn du la toroxal nit boo respecté sa bopp lu bëri danga koy daw mhm. loolu mooy dëgg. waaw kay waaw kay jaajëf waay merci jërëjëf kon Louga loo teew nañ fi Saint-Louis Ndar euh, maanaam waa Ndar ñi nga xam ne ñoo di waa Thiès ak ñëpp maa ngi koy wax léegi ki nga xam ne moo di Mara Thiam mu nga wàllu wala foofu ca Ndindi ci kër euh, Serigne Abdoul Karim waaye itam ki nga xam ne moo di Moustapha Werekaan mu nga fële ci Jannatu Maxwa man nag damay daal di génn ci biir jumaa ji daal di wër biir kër Serigne Saliou dem biir kër ki nga xam ne moo di Serigne Abdoul Ahad maanaam wër kër yëpp xool ziyaare ndax waxtu wi ñuy wax ak yéen ci la ñuy toll ñoom ci tëju kaamil yeeg yooyu

والذل والجنون حتى الكتاب dellu di ziaraat bu baax a baax yéen ñi saxaw di wétaliko 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale ba tey ci eh, li nga xam ne moo di bëccëgu màggal gi tey ci 129e édition bi fii ci 4 septembre ci ñu ngi nag fi nga xam ne moo di kër eh, Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Abdou Lahad Mbacké moom eh, Cheikhou Khadim fi ñu nekk nag jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Serigne Sidi Abdou Lahad moom nag mi nga xam ne mooy xalifa kër gi mooy taawi kër gi damay bàyyi rek kenn ci njabootam gi kenn ci mbokk taalibe yi mu daal di ñuy wax rek li nga xam ne moo nekk fii ci kër gi ñu ngi a baax yéen ñi ñuy topp ci 7 sëñ bi salaamaaleykum. ñu leen di ziar ziar mbokk taalib yi di ziar sëñ Sidi Mbacke bu baax a baax moom sëñ Abdoulaye waaw di jëriñ jëwriñu sëriñ Touba waaw toogal fi tey toogaay sëñ Abdoulaye ñu ñëw di ko ziar waaw ci turu turu turu télévision bi waaw di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak wérale ndax li ma fi li li li fi bàyyi laa defoon ba tey yëpp da kaa jëmee kanam mu dara doo xam ne des na ginnaaw waaw ñi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak wérale waaw sant yàlla bàyyi kenn nattop liggéeyam fii si Touba li mu liggéeyal sëñ kenn kenn nattop lewu ko waaw muy roykaay nag si ñëpp waaw sëñ Sidi di di ku ñàkk kiñaan ñàkk caaxaan waaw ba na moom dañuy ñaan suñu borom dolli ko fi yàggal mu ànd ak wér ak wérale jaay la même sallallahu alayhi wa sallam bakat Cheikhul Xadim di leen gërëm nag yéen itam di leen sant bu baax a baax jërë ngeen jëf kulli yëpp yëpp الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية صلاة خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والآل وأصحابي حقنا سلام وصمقام